asalaamualeykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk di leen fàttali liggéeyu daara ji alhamdulillahi yàlla dogal na ñu ngi ci jéego yu am solo jëm ci karo yi incha allahu am nañu yaakaar ne tey ci ngoon sax daañu indi karo yi euh, suuf si tamit tàmbali na indi benn charge suuf ñuy def ndànk rek fii ak semaine prochaine incha allahu su fekkee ne yàlla dogal na taxawaay bi wéy ci nii muy demee yàlla mën naa dogal lépp jàppandi incha allahu ñu ngi leen di fàttali seen numéro téléphone rek 77 euh, 634 06 68 sunu waxtaanu tey ñu ngi ko jëmale ci réew mi réew moo xam ni askan wi fi nekk bari na fi ñu fi tey seen xel tey seen xel kañu ko tey di ca def lu ko neex duñu xalaat duñu seet duñu seetantal ñoom daal amuñu opinion soit ñu dénk ko kenn kooka di ca def lu ko neex wala lu ñëw nag yóbbu leen lu ñëw lu ñëw rekk ngeen jéggal ma kàddu gi nag ñàkk fulla ñàkk fulla mooy ñuy jàppale di la fowe nit jël la di la jëfandikoo ci yëfi boppam ci xelum boppam ci bagage yi boppam su paree sànni la nële loolu moom du ful la loolu nag bari na fi waaye am na nag ñoo xam ni ñoom dañuy jëfandikoo xel mi leen yàlla baaxee di ko jëfandikoo di ràññatle di déglu di dégg di seet di seetantal ba nga xam ni looloo leen yóbbu ci ku leen tegal lu yenn ut maanaa ñu jël ko tegal la ko foofee am nañu fulla yit nag kenn du leen jëfandikoo am nañu fulla kenn du leen jëfandikoo kenn du leen fowe kenn du leen jaarale ci yoon wala neex soo paree sànni leen loolu lu jaroon a leeral la ñu ñëw ci wax ji dëgg dëgg dëgg li indi ma wax loolu ci njàlbeen dégg ngeen ñu wax ay nit ñu wax ci waxi Bah Diakhaté wax ni ñu ngi koy ñaanal moom ak Cheikh Tidiane ñu génn ci xat-xat yi loola nattu la yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni unsur axaaka zaliman aw mazluman wallul sa mbokk su tooñee ak bu ñu ko tooñee ñu ne ko xam nañu nu ñuy walloo ku ñu tooñ de dangay taxaw ba xam mu jot ca waaye ki tooñ nuñ koy walloo moom mu ne dangay tiye ci loxoom xamal ko ne ko yaa tooñ kon soo taxawee nga ni ay nattu la dama yaakaar ne da ngeen a xàmmewul diggante nattu ak sànje sànje mooy suñu boroom tabaraka wa taala moo la bàyyi nga nekk ci li nga nekk ba moom it mu delloosil la la nga xamoon ne moom nga doon jëf wa man amila man amila fa li nafsihi wa man asaa fa aleyha ku jëf lu baax sa bopp nga ko jëf ku jëf lu bon lu bon loolu day wëlbatiku siwaat ci yow loolu mooy sànje su fekkoon ne dañuy wax ne nit ki saa yu demee kaso dañu ko nattu xanaa kon reykatu nit yeeg jaaykatu drogue yeeg soppikatu xaalis yeeg violeuri yi xanaa bu ñu duggee kaso xanaa ñoom it dañ leen a nattu kon loolu du nattu déedéet du nattu su fekkoon ne loolu dong la kañ kon dañu naan kon ku dugg safara kon yàlla la nattoo dugg safara déedéet safara du nattu nattu mooy loo xam ne lii day ñëw ci nit ki par erreur njuumtee ku ko yóbbee nga xam ni du dépendre mukk ci sañsañam du dépendre ci volontéem masalan koo xam ne kii dafa leboon xaalis ngir dara jëfandikoo ko kamu leboon yàlla dogal waxtu fay wa jot te mënula la fay am na intention waaye am na lu ko gaar bu ko ca kaso fekkee ñu da jàpp ne nattu la wala yaasu billaa koo xam ne kii da doon dawal oto am ay këyit yu walaabal di dawal normal yàlla dogal mu gaañ ci nit ak xeetu gaañ-gaañ bu mu mën a doon loola tamit nattu lay doon ak yeneen yu ni mel nag waaye koo xam ni kii dafa fekk néegu këru jàmbur mu yéeg miir ba cëppeelu ca biir di fa jéem a luubal walla góor gu jàpp jabaram dóor ba toj bët ba wala mu damm bëñ ba wala ku yor ñaari benn parcelle di ko jaay jaay ko kii mu leer la ne jaay nga ko ko ba noppi nga dem jaay ko keneen ñooñu amuñu nattu ñoom ñooy nattu askan wi waaye amuñu na nattu ils n'ont eu que ce kon lu tax ñu kon mën a wax ne lii dafa baax lii dafa bon wi la différence am dëgg ak ñàkk am dëgg kon fan lay feeñe am na fi koo xam ne kii day rahmatullah alayhi imam Alioune Badara Ndao ku ne xam na ne la ko dal nattu la te pourtant ba ñu ca tollee kenn newul nattoom bi ne ko yàlla teggee jàmm ah dégguma ko bokk xëy na am nañu ko dégg Ousmane sonk ak Jomaay ak seeni moroom yeneen dugg nañ fi kaso dégguma kenn ku ne seen nattu dégg naa sax ñu naan am nañuy jéggalul Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñoom waruñu koo jéggalul magum jëmmala la responsable la ànd akum xelal ku sa doom tooñ mën nga ko jéggalul ndax xale la amagul responsabilité ku yorub xaj mu màtt nit te yëgoo te te tey yëgoo ko mën nga ko jéggalul ku yor ku xelam matul mu ne ci sa kër yàlla dogal mu def lu ñu wër te def mën nga ko jéggalul waaye ku ànd kum xelam xalaat waxul lu dul teeyu bakkanam kooku su fekkee ne yoon dafa dal ci kawam moom mooy jëggalul boppam su jéggalulee boppam su demee ca kanamu juge ba xëy na dana ci tenir compte xëy na ki nga xam ni moom la tooñoon it mën na ci tenir compte retirer plainte su fekkee ne insiste na na ca la mu waxoon mu assumer conséquences yi c'est aussi simple que sa waaye kenn du jéggalul ku tooñ ci anam yooyu te ñii lépp lu waay mën a wax lu dul dañoo tooñ da ngay wax lu la neex jéggalu gi ëpp leen nit ñi yërmande ëpp leen nit ñi ak ñeewante man yaakaar naa ne li ma yëg ci li ñuy dund man dong ko xam parce que man yéenewuma kenn kaso yéenewuma kenn feebar yéenewuma kenn ay nattuy àddina su ma sañoon suñu boroom du ko wàccee ci kaw suuf waaye noonu la àddina di doxee waaye du tee nag ñàkk yéene gi man yoon dong laa xam na jub na tegu ci yoon li may daaneele sama kàddu nag mooy vidéo yi may def depuis sept man maa ko tànn maa ko tànn muy daanaka taw tawféex bu ma suñu boroom defal ndax bind naa lu jege 30 ans yoo xam ne ña ko liir matul xëy na <laughs> juróomi téeméer su ma ko doon wàññi bind naa ba tàyyi bi yàlla dogalee ma gis Facebook ak YouTube dama jàpp ne bunt bi ma doon yet mu tëw yattu Facebook bi bunt la ca ñaata texte la comment la la publier ci YouTube ci Facebook xaw ma nu mu toll ku ko bëgg xam sama Facebook lu yomb a gis la ku ca dem gis ko depuis ëpp na fukki at ak nangam bi YouTube bi dikkee ma gis vidéo yi mën caa jaar nit ñi gis dégg ci maa ko tànn kon manitam itam j'en assume responsabilité lu bokk ci réew mi bokk ci valeur yi bokk ci diine ji mënuma mucc ci noppi ca kon lu ma ca góobe rek danaa ko gar kàddu gu xajam gumu mu mën a doon gu ñëw jam dal ci sama kaw waajal naa ci sama njabootu bopp bu njëkk nag xawoon na ma déranger parce que doomu gor laa jàppi sama bopp nit ku yiw kon ku yëkkati kàddu jëme ma ko te mu xajam du ma neex du neexit sama njaboot waaye waajal naa ci sama bopp waajal leen ci ba fi ñu toll nii tamit ñun dañoo ngër ka ndax ñaar ñaar ñaar benn bi mooy du ma dégg mukk la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déggoon saxaabatul kiram ko alquran a ko nett li sama vidéo bërki démb wax naa ko ci la suñu boroom wax ne la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasmaunna min allazina utul kitaaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kathiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al yàlla nee na dinañ leen nattu ci seen alal nattu leen ci seen jëmm da ngeen dégg ci ñi nga xam ni ñoom ñoo ñooy ahlul kitaab ak ñi nga xam ni ñoom ñoo ñooy ñooy bokkaale mushrikuuna yi da ngeen dégg ci ñoom kàddu yu ñaaw yu baree bare bare bare bare bare bare yàlla nag nee na man ragal yàlla ak muñ képp laa leen sant santuma leen leneen mooy jikko yu kawe mooy daraja yu kawe ya kon loolu doy na ma doy na sama njaboot ci ñu wéeru ca ba gëm ne segam yonent bi lañu waxoon wax ko saxaabatul kiraam man mu di mii mënuma cee mucc waaye nag képp koo xam ni kii yëkkati na ay kàddu jëme ma ko xool leen ko moom loolu rek laay defee sama référence ku ma ko mën a wax ak ku mu mën a doon xool leen ko moom loolu rek doy na référence li ma wér te wóor mooy jullit dëgg di gor dëgg du yëkkati kàddu di ma ko jame xanaa nga tontu nag ndax nag euh, ci pénc la ñu ne mën ngaa indi say argument weddi li ma wax waaye yaakaar naa ne doo ko boole kàddu yuy déplacé parce que duma ci dugal kàddu yu déplacé man waaye ku nekk la nga am ngay maye kon ñi nga xam ne ñi ñoom ñu ngi may ñeewante je salue votre compassion wax dëgg yàlla maa ngi leen ci sant di leen ci gërëm bu baax a baax ci ku ci gis ku ma wax lu ma wër wax walla nga comment wala commenté commentaire bu bu ñaaw loolu lépp bum leen naqari ndax man ndeyu mbili ji naqariwu ma naqareetuma man naqareetuma kon mam fi ma toll rek na leen fa tollu jàmm ne ñooy te nag fu ngeen gis benn kàddu gu ñaaw gu nit jël jëme sama jëmm ji dangeen gis ca wet ga téeméeri nit yoo xam ne yi ña ngay commenté di ma sant di ma encouragé di ma ñaanal am ci sax ñu mu jaral ñu dem ba di def vidéo kon loolu jar naa muñe jar naa muñe man daal li ma war mooy wa isa xaatabahumul jaahiluuna qaaloo marroo kiraaman jeex na marroo kiraaman rek laay def duma duma duma dem ci ñenn ñi suñu boroom tabaraka wa taala mi ngi wax wala tastawi alxasanatu wala sayi'atu idfa billati hiya axsanu fa ida alladi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyun xamim wa ma yulaqaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaha illa zu xazin azim yàlla nee na lu bon ak lu lu baax du ñu yem mukk mukk mukk mukk mukk te del delloo lu baax yow saa la nit ki defee lu bon jëf ko lu gën a lu gën a baax loolee nee na day mujje rek moom jël buum yeew ci ba baatam jox la loolu ñu wax jébbalu moom lay def ci yow waaye nee na loolu nag ñi muñ rek ko ko mën ba yàgg suñu borom ne sax déedéet ñi muñ sax mënuñu ko dëgg dëgg dëgg ñi ko muñ mooy ñi amub cër dama bëgg a boole sama bopp ci ñi am cër moo tax am na yoo xam ne duma ca dugg duma ca dugg xajuma ca te nag buy aayee alquran yooyu yépp nag duggee ci sama xel ma xalaat ko gëm ko di ko jëfe dama ciy boole nag duma ñeexum ñebbe ma ñeexum ñebbe am na loo xam ne lii duma ko nangul kenn ci kaw suuf am na ñoo xam ni ay réplique violente rek lañu xam loolu nag denc naa ci aslafit nag ku yaakaar ne damay wax ay wax nga dikk di menacer xaabar xaabar yi wax lii wax la le ma génn damaa juum maa ngi jéggalu patati patata da ngay nax sa bopp parce que samay wax laata ma koy tàmbali laata ma koy wax seet naa ko seetantal ko gëstu ko biir ak biti ba mu wóor ma ne lii lu mën a génn la kon ay waxi caaxaan rek mënuma koo tax a changé may dellu si naan juum naa tuub naa dégg nga damaa déedéet mun munu leen ko am loolu mënta nekk yàlla nag ku mu fay nga fàtte la la nga doon def ci lu baax ku mu fay nga fàtte la nga doon def ci lu baax te moom laa bëgg mu fay ma fii ak fa ñu jëm ëllëg moo tax li may def dama ko xeeb sax lu ci waay wax itam lu jëm ci man it am na ci loo xam ne dérangé wu ma am na ci loo xam ne dérangé wu ma li ma wóor daal mooy man mii dëkk ci Louga gi ñépp xam ma ñi mu naqari ñàkkul ci biir Louga gi ñàkkul li may wax ku mu naqari fii ci biir Louga waaye mënu ci lu bari ndax xam na fi mu may fekk te du ma fi fekk waxuma laak nag ku muy jaral nga jóge ndakaaru wala ndar wala feneen kum ko jaral bismillah yoon wi soriwul waxoon naa ko fii ci ay jamono ne ku ci amul paas sax soo ma yónnee woowee su ma amee weef yónnee la ko nga paase ko ñëw ñu lijjanti li ñuy lijjanti nga delluwaat ko defee bokk yi foofu la ñuy yemale kàddu gi ba beneen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.